L'Ergue TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيزكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم suñu borom ne su ngeen fasee jigéen ñi ida jege seen jeexuk idda fa balaxna ajalahunna da ji jeexagul waaye li ci des bariwut te muy pasem moo xam ne pasem raj àlla mu ñu mën a delloo si waat la nee na bu boobaa nag benn fa am si ko hunna bi maaruf ngeen delloo si leen téye leen ci njëkk te moy yene taxaw ci seeni àq ci anam ga gëna rafet ci sharia ak ci oruf muy li nga xamne mom la xel mu rafet nangu wala bok aw sarrihuhunna bi maaruf wala bu gene amul yene delo ci len kon ngeen bàyyi ba idda jamat bu idda jamatee rek li muy teg kon mooy passé ma dagg na léegi waaye moom it lépp na doon ci njekk na doon ci bañ a dara ci seeni àq wala tumsikuhunna diraaran li mu ne bu leen leen téye nag ci sëy bi waat leen ci sëy bi waaye fekk na yéene ja mooy bëgg leen a lor bëgg a manquel seeni àq tax ñu waat ko ca sëy ba rek ngir bëgg koo sonal nee na loolu bu leen ko def wala tumsikuhunna diraaran li taatadu ngir ngeen jalgati seeni àq yi delloo daal na doon fas ko yéene yor yor bu rafet bañ a mànkil dara ci ay àqam wala tattaxisu ayaatillaahi huzuwa mu ne nag bu leen li tax nu man yafal zalika faqad zalama nafsa neena ko xamne xam ne def na loolu muy delo ci wat ndaw ci ci sëy bi te bëgg ko lool rek tax ko def day togn na bopam ndax yobbe na bopam luy tax mu yeyo mbugal ëllëg kon bopam la tooñ wala tattaxisu ayatillahi husuwa bu leen jàppee nag aaya yàlla yi ak atteem yi lu ngeen di foyee ak lu ngeen di caaxaane fase bu iddajee bëgg a jeex nga jëlaat dem ba ci kanam nga fasewaat te jëlaat ngay jubloo ci dara lu may rek bëgg koo tardeel bëgg koo sonal nee kon bu boobaa day mel ne yaa ngi suñu borom tabaaraka taala ak atteem yi waskuru ni'matallahi alaykum ni ngeen di fàttaliku xéewalug yàlla ci yéen te mooy lislaam ak ni mu faram-fàccee atte yi ba kenn du tooñ kenn kenn du jalgati ak kenn kenn ku nekk li ngay def da koy teg ci lislaam wa ma anzala aleykum min alkitaabi wal xikma ngeen di fàttaliku it xéewal gim leen defal ci alquran defal leen ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu leeralal leen lépp seen diine xéewal googu da ko war a sant sant ko nag mooy jëfe ko mu ne yaisukum bihi mu di leen ci waar di leen ci fàttali ngir ngeen ak seen borom ba mëna watandiku lépp luy andi ak juyoog alquran ak sunna man leen andil mbugal ëlëk wa wattaqullaha waalamu anna allaha bi kulli shay'in alim na ngeen ragal yàlla te di fuglu ay atteem di ko topp te xam ne suñu borom moom lépp la xam li ne ci yéene yéeg xalaat yeeg lépp rek suñu borom tabaraka taala moom xam na ko kon kuy def dara mu nuru lu baax ci kaw te fekk na la ca biir jubluwaay ba du lu baax suñu borom xam na ko wa iza talaqtum nisaa fa balaxna ajalahunna fala tacduluhunna an yankixna aswaajahunna ida taraadaw baynahum ma'ruf dalika yuazu bihi man kaana minkum yuminu billahi wal yawmi al axir dalikum azka lakum wa athar wallahu yalamu wa antum la taalamun mu ne su ngeen fasee jigéen ñi pase moo xam ne yées na ñetti pase nga xam ne mënees na koo delloo si waat mu dem ba idda ja jeex borom kër ba Kainanak ko ba idda ja jeex xeyna nak gannaaw bi mu bëgg caa jotaat loola kon booba dañ koy dañ koy takkaat bo idda ja jeexee moom faaw dañ koy takkaat loola nag lay wax ak kilifa yi ndaw sa ne leen nag bu ko gàllankoor bu ñu tere ndaw si ne ko doo delluwaat ci sa borom kër boobu ci ñu la koy mayaat nee na loolu bu ko kenn bu ko kenn tere fala taaduloohunna bu leen leen tere bu leen leen xañ an yan kihna aswaajahunna ñu sëyaat ak seen jëkkër yooyu nga xam ne moom lañ seen jëkkër yooyu ñu doon sëyal dem fase ko ba idda ja jeex mu bëgg koo takkaat nañ ko bàyyi mu takkaat ko isa taraadaw baynahum bil maaruf nee nu bu ñu gërëmantee ci njëkk maanaam bu ñu dàkkooree ñoom ñaar ci ne ak rafetal ak and bu rafet réccu la won woon mo len delo wat ci sey bi ñom ñaar ñëpp ñu d'accord ci kilifa yi buñ ko gàllankoor ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأن لي نك سن بروم تبارك وتعالى mi ngi ci waar koo xam ne gëm na yàlla gëm na bis bu mujj ba ci yéen julit ñi bu yilifee jigéen jigéen ji borom këram fase ko mu jàpp idda ji ba idda ja mat de delloo watu ko gannaaw bi nag mu bëgg koo jëlaat te waxtaan nañ ba juboo ndaw sa d'accord na ca waa ji d'accord na loola kon bu boobaa bu kenn tere mu delluwaat ci kooku nga xamne mo doon borom kërëm mune zalikum azka lakum wa athar neena lolu mo gëna sel a sell te moo gën a ci seeni dar ndax gannaaw ñoom jiitu woon nañu sëy ba xamante te itam ba tey ak mbëggeel mi ngi dox seen diggante ñoom ñëpp ñu bëgg àndaat Eh, di galang seenu luk lola man na andi eh, lenen kon daal bàyyi leen ñu àndaat la ne moo gën a sell te itam moo gën a te itam moo gën a ëpp ab yool ndax nag wallahu yaalam wa antum la ta'lamun suñu borom moom moo xam li nga xam ne mooy baaxal seeni mbir waaye yéen xamu ko loolu nag mooy su fekkee masut matul ñetti passé waaye su fekkee ñetti passé la mat moom kenn mënu koo delloowaat moom it du ci mën a jotaat lu mooy ndaw sa dafa sëyi feneen ci loo xam ne du lu kenn préparé du lu kenn waajal ba jóge ca sëy booba boobaa nag ci la ñuy doog a mën a àndal kon lii muy wax mooy su fekkee dafa matul ñetti passé wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayn nee na jigéen ñi nga xam ne jur nañu ay doom nañu nàmpal seen doom yooyu nàmpal gi àq la ci ñoom dañoo war a nàmpal seen doom ñaari at yu mat sëkk ci koo xam ne bëgg naa matal nàmpal li man araada an yutimma radaa ci ku bëgg matal nàmpal nàmpal kon la ci gëna bari moy ñaari at fofu la wara a man na ca baña yegg nag ku ca bëgg a yegg nag nga ca yegg wa alal mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf neena war na ci bayyi nga xamne mom mom la jural dom ji ñu warlu ci jigéen ñoo ñuy nampal seeni doom seenu ñam seenu dund ak seen koddaay ca anam ga gën a rafet ci sharia ak ci li nga xam ne mooy urf mooy lu xel mu rafet nangu ca na mu la laa tukallafu nafsun illa wasaha neena nak suñu borom tegul benn bakkan lu dul kem kàttanam la mu man maanaam kon ca dundal boobee itam nag ak yor ba day dellu nag rek ca na nga xam ne noonu la ko mane laa tudaara waalidatum bi waladiha Mune ne lor bëgg jël doom ji def ko yoon woo xam ne ci lay lore yaayam maanaam xëy nañu tàggoo ci sëy bi sëy bi dafa tas mu yor doom mu bëgg jël doom ji bëgg cee naqaral yaay ji tax mu bëgg koo jële ci moom loolu ne kenn waru koo def wala mawloodun lahu bi waladi waaye baay bi itam yaay ji bu mu yoree doom ji itam bu mu ko xañ bay bi su fekke bëgg na ko gis ak jam ci am lola bu mu ko ko xañ dom ji dal ñom ñaar bu ñu tàggoo it doom ji ñoko ko bokk séq xam kum ci féetal te yaay ji sax la wara a bu tollo ci di nam ak it bu dëgëragut tollu ci ñu koy yor nga xam ta guta euh jangé wala nek ci yenen loxo loolo bu boobaa ku ko yorit bu mu ca xatal ka ca des baay bi bu fekkee yaay ji moo ko yorit la ca war ci ab dund doon ci tàggoo nañ dundu doom ji moom ak sax moom mi koy nàmpal jamono bi mu koy nàmpal doon ci tàggoo nañ moo ko war a euh, jox lu muy dunde mu ne wa alal waaris yi mislu zalik mu ne ki nga xam ne itam nag mooy mbokkum baay bi nga xam ne bu baay bi faatu woon moo koy don on a rakki baayam la wala magi baayam la wala daal ci ñi koy donn la bokk bu fa baay bi nekkuti taxaw gi ñu war a taxaw doom ji ñooñu loolu war na leen loolu war nañu taxawu doom jooju nga xam ne eh, ñoo ñooy donn baayam maanaam ñoo ko jege ci jege ñaale ba eh, bokk ci ñi koy donn li ci war baay bi kon moo leen cee war li mu waroon a joxe ci ab dund ak koddaay bu faatoo donoom yooyu ñoo ca war a taxaw fa in araada fisaalan an taraadin minhuma wa fala junaaha alayhima nee na ñaari way jur yi nag ndey jeeg baay bi su fekkee bëgg nañoo feral doom ji te fekk ñaari at yi matut waaye ñoo ca waxtaan ba juboo ca kenn du ca forcé moroom ji jigéen ji ci lu dul benn ngànt du jekki-jekki ne damay feral sama doom te matul ñaari at bu ci baay bi dakkoowut baay bi du ne ko danga koy feral bu fekkee amul benn ngant te fekk na yaay ji bëgg gu koo feral kon daal juboo lay doon fa in arada fisaalan suñ ko bëggee fel antaraadin ci ak juboo goo xam ne dara ci force amu ca ku ne li nga def sa tey bakkan nga ko defee min huma foofa góor ëpp fa sañ-sañ jigéen foofa ñoo ca tolloo wa tashawur ak diisoo itam nag lu ca waay di defit nag da nga koy yëgal ka ca des ci diisoo neen na fala junah alayhima ayut duñ ca am benn xat-xat bu fekkente ne ñoo ci waxtaan ba ci وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير nee na su fekkee da ngeen a Nena na loolu ayut ndax loolu daana am e, jël doom ji nampal lu ji ko feneen doonte sax ñaga ca sëy ba sax amuñu benn jafe-jafe muy ndeyjeeg baay bi léeg-léeg arab yi daanañu jël seen doom di ko nàmpal lu ji ca baadiya ba ca kaw ga ndax foofa la làmmiñ di gën a sete foofa itam la xale bi di gën a dëgëre ndax dundub àll bi bokkul ak dundub dëkk yu mag yi neena loola buñ ca juboo loolu ayut waaye nag du tee mu jox nag yaay ja àqam isa sallamtum ma aditum bil ma'ruf jox itam ka koy nampal akam mana yaay ji jele giñ jele ci moom doom ji lu tax ñu ne ko yow duutuñu la dundalati du tee àqam ci ab dund war nañ ko koo jox ka koy nampal itam fekke ku ñuy fay la mom itam ñu ñu fay ko wala buñ ko fayitut jox ko ab dundu bu mu mëna a doom ji man ko yor xam ngeen yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ko nampal lu ci won ci eh, alimatu sa'diya te boba yaayam mi ngi fi ndax loolu ñu ci daan dabu ji ci dundub àll bi wattaqullah mun na ngeen ragal yàlla lu ci waay di def rek na ko ci ragal yàlla bu ci dara ci bakkanam wala bëgg lor keneen wa'lamu anna allaha bima ta'maluna basir da ngeen xam ne suñu borom tabaraka taala xam ne li ngeen di def tey lépp mi ngi koy gis bu fekkee dañoo tàggoo it yaay ji di nampal doom ji ni ñu ko waxee yaay ji bu ko neexee mu laaj ak pay gannaaw kee gàddulu ko ab dund mu laaj ko ne na ngam nga may fay ba ba may nàmpal ba noppi bu fekkee jubóowuñ ca nag moom lay wax ca suratu talaax talaax wa in taasartum fa sa turdiu lahu uxra nee na bu fekkee nag d'accorduñ ca yaay ja la muy laaj baay ba mënu koo joxe wala d'accordu ca nee na kon mën nañ koo jël jox ko keneen ku ko nàmpal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 ويزرون أزواجا تبين في أي سخنة ولا بين في سخنة ولا أي سخنة نينا سخنة يوية ورنا نجن لكو يتربسن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من الجكي توق بلا نوي دوغات تي بنين سي موي موي تنج موي عدو نينتي وير اك فكي idda nag jàpp idda jooju iddatul muy àll di arab di wax xidaat muy tënj du dara rek lu mooy tarku zina mooy daal lim daan def ci boppam di ko feeñale ab taaram loolu rek lañ koy tere ndax li ci des lépp moom fekkee jigéeni jullit ju doon dund diineem la dara du ca soppi ko niñ koy tudde fii naan diw day muuru wala diw day summi batub summi mom lu doy war la wax jigen warta ko nan tay lañuy summi limi tekki kon moy ak dañuy solo tay dañ leen leen di solal noné muy solo bu borom kërëm faatu nona la warona mel bu borom kërëm faatu wut ñi amul borom kër sa non lañ wara mel jigen julit mom limi solo ak colam bu xasse mat mukallaf sarta sartatuñ ci mu am borom kër ak mu bañ ko am ak borom kërëm di dund ak borom kërëm faatu lepp ben la julli yaak téye làmmiñ waag téye tànk baag lépp itam jigéen ñëpp la war duñ nekk ba jàpp ne bu ki borom këram faat rek moo war a def yu mel noonu moo war a matal julli yi moo war a muur aw yaramam moo war a gàttal tànkam gàttal làmmiñam déedéet kooku jigéen rek la war li war ñëpp moo war boo gisee muy diis ñu dugal ci ay aada yu bare bare bare bari ci tënj lu bari lañ ci dugal ndax dañ ci dul dellu ci borom xam-xam ci ay aada rek lañu ciy dellu ci mag moo xam ne ba mu ca tolloo def loo woon nañ ko ko ñi toll ci def ko itam mooy ñëwaat di leen jàngalaat moom na mu ko defe woon lu nekk ju dugal ko ci waaye yooyu yëpp amu ci li mu ci doon def rek daal mooy lépp lu mu daan dollee taar daal xam ne defaru yi mu daan defaru daal te loolu borom këram a taxoon amoon na boroom kër war na defaru di waaj ci kanamam comme amul boroom kër nag te jamono bii mu toll yi mënta am borom kër kenn war koo bëgg di ko ngoro kon bu mu def luy attirer kenn ci mom bu mu def lo xamne ne lenn la lu yok taram luy attirer kenn ci mom lo rek moy moy tënj bi mune nak fa iza balaghna ajalahunna suñu deme nak ba dig ba mat ñent wer yaag fukki fan mat fala junah alaykum fi ma faal fi anfusihinna bil ma'ruf neena nak ayu lañuy def ci seen bop nak ci defar defarwaat ak di sol seen waajtaay ci nag waaye lépp nag ci anam nga mu jaadoon ak bu saree anam ko man li ko sari a may daal ci lu mu war a mën a waaje lu mu war a mën a def ci boppam te ña ko war a gis di ko gis léttoog takk ay jaaroom ak euh, sol ay yére yu baax ak yooyu yëpp ba muy ndekkee ci idda ji sol dana yére yére yu baax waaye nag euh, du doon yére yoo xam ne yu mën a attiré kenn ci moom la nee na loola ayut bu boobaa wallahu bi ma taamaloona xabiir suñu borom nag mboolem li di jëf moom ku ci dañ kumpala la la ca biir ak la ca biti lépp xam na ko te itam nag lépp lay fay mu ne wala junaha alaykum fi ma arrattum bihi min min qitbati nisaai aw aknantum fi anfusikum علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا nee na aayut ci yeen yeen goor ñi bu fekkente ne jigéen ji mi ngi toll ci di iddaw di tenji, te nga xemmem ko takk bu idda ji mate nee na la ngay joxe ci wax wax joo xam ne daal moom des na ci mën a déggee ne yow am nga ci xemmem teef tem bañ doon nag bëgg a tàmbali ngoro directement waaye daal mën nga wax joo xam ne daal moom danañ ci déggee ne kii am na loo xemmem ci moom ci denc nee na loola ayut mooy fii ma arratum bihi loo xam da nga koy gaaral rek du war doon wax ju direct waaye gaaral lay doon rek min xibati nisa ca labat jigéen ña aw ak nantum fi anfusikum wala sax waxoo ko waaye yaa ngi ko jàpp ci sa xol sa xel ne kii daal bu iddaam jeexee dinaa ko labat dinaa ko labat loola ayut mu ne alima allahu annakum sa taskurunahun suñ borom xamni ne faaw da ngeen leen tudd bu ngeen ko waxut ndaw sa wala ay bokkamit dana am fu ngeen di toog di ko waxtaane naan diw de moom ku ko amoon soxna dana baax man de bëgg naa ko nee na faaw da ngeen leen tudd alimallahu annakum sataskurunahunna ndax loolu doye rek gu nekk ci nit la goo xam ne su amee lu mu bëgg rek faaw muy jaar ci aw lamiñam mu am ñu mu koy waxal walakin laa tuwaaciduhunna sirran illa an taqulu qawlan maarufa mu ne nag da ngeen wattandiku di digganteeg ndaw sa ci bëgg a ak moom wala bëgg koo takk ci biir bi mu nekkee ci idda ji nee na loolu moom am lu ngeen di doxal ca suuf daal ci bi mu nekkee ci tënj bi ci iddaw gi nee na loolu na ngeen koo na ko moytu loolu lu ñu tere la laa tuwaaxiduhunna sirran loo xam ne secret la nga xam ne yéen ñaar rek ko xam illa an taqulu qawlan ma'rufan lu dul daan ngeen wax wax joo xam ne eh, wax ju jaabu la joo xam ne rek dinañ ci mën a déggee ne eh, xemmem nga denc ko su fekkee idda ji mat na loolu moom ayut wala ta'simu uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah. neena nak bu len dogu bu len décider di fas sey ba di wax wax jo xamne nak sey bi da ngeen di wax carrément bu jubo ci sey li feek nak idda jamatut hatta yablugha al-kitabu ajalah ba nga xamne idda ja jeex na ci ngay dog mëna wax lool waye li fek idda ji jeexul dal waxi rek lay waye nak du mëna nak tambali eh, labat go xamne ne gu ñu dogu la waalamu an allaha ya'lamu ma fi anfusikum da ngeen xamne nak yàlla li nekk ci seen bakkan yi seen xalaat yi seen xol yi lépp yàlla xamna na ko kon nak na ngeen ko moytu na ngeen moytu seen ak seen borom ngeen ko ragal ndax kat bakkar dafa am bakkar yu feeñ zahiral ismi wa batina dama ci suratul anam wax na ko wazaru zahiral ismi wal batina wattandiku leen bàkkaar bu feeñ ak bàkkaar bu nëbb xol bi day dafi bàkkaar di fas ak di bëgg loo xam ne waru ko woon a bëgg waru ko woon a yéene waalamu anna allaha xafurun xalim waaye nag na ngeen xam ne yàlla kuy jéggale la même ko amoon xalaat yooyu itam waaye na nga tuub ko yàlla kuy jégal la te itam xalim kudul gawe gaawé mbugal la ko lawet la du gaawé mbugal ci nit ki def lu yeyo mbugal rek mu dal koy mbugal fasaasa dedet dana ko may ba sukotu ko mu jéggal ko nit ki mom li fek mi ngi dund rek man na tuub li fek demagul ba tollu ci waajtaayu faatu tollu ci xar xar le fofu nak lañu tejj buntu tuub ci mom waye luddul dul kuy dund ku nek rek ubbi nañ la buntu tuub لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين من بروم كري آيول سنين فاسي جيجين غناو gannaaw فاسي تاكو بنابي ndax buñ tak gannaaw tak ci la fasade mën am in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna te neena fekk na jotu leena seq ak ñoom dara dañ ko fasal non rek aw tafridu lahunna farida wala mu daytalal ko ak can mana defoon na ak can wala sax jotu koo def jotu jotagul a joxe can gi sëy ba tas ñu tas sëy ba wala moom ci boppam mu fase ko mu te wa matte ooxun na boobaa itam nag téewul daaw joxewul woon dara waaye maye woon nañ ko rek jëmmi takkoon nañ ko ci rek loolu mu génnewaat ca loxo yi kese moom jigéen ji noonu loolu day xaw a metti moo tax nee na na ko wutal yóbbal na am lu mu ko jox wa alal matiuhunna day am daal lu mu ko jox waajal ko même bu fekkee magas ñëwagul woon ci këram waaye daal mu am lu mu ko defal ndax dugg gi mu duggoon ci sëy bi bari woon lu mu ca yaakaar lool nar ca génneeg loxo yi kese noonu itam daal loolu rafetut mu ne nag alal moosi e qadaruhu walal muqtiri qadaruhu loole ñuy jox ndaw sa nag mi ngi dépendre ci am am waa ji nee na koo xam ne kuy am lu yaatu la na joxe ah lu tolloog moom am amam ndax ku am ni muy dépenser bokku la ku amut wa alal muqtiri ki nga xam ne itam nag dafa néewle moom itam qadaruhu am na nu muy na joxe fa tolluwaayam toll mataan nee na loolu ab yóbbal lay doon bil maaruf ci njekk waaw njek rek la ak rafetal haqqan alal muhsinin nena akal nak ci rafetal kat yi kep ko xamne def lu bax nga dal buñ la maye jigen donte gu len sax e, seq dara donte go won sax joxe dara sëy ba yàlla dogal mu yam fofa du rek nga am lo jox ndaw sa e, rafetale ko ko e, sigale ko ko dal ndax jigen ji mason nañ ko maye ji rek sax lolu day am lu muy wañi ci mom donte eh, sey jot fo wona am waye bu ko nit don ngoroon ñu ko kat mason nañ ko may jigen ju juñ takkon la te ñak ga sekh dara itam man na baña leer nit ñi dañ nan sëyoon na rek sëyoon na rek lañ wax loolu nak kon bu baba ah sey bobé nga xamné ne lu muy wañi ci ni nit ñi gisé kon war na ca jëlee dara ci njëriñ wa in talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna batay suñu ngeen len fasé lu jitu ngeen di seq ak ñoom dara waaye nag waqad faratum lahunna farida fekk na joxe won ngeen ak cyan bu jekk bi mom moy mayon nañ ko ko waye jotewut ta joxe dara sey bi tas bi nak may nañ ko ko ñu dara waye joxe na ak cyan neena fanisu ma farabtum bu boba genn walu lamu, lañu lañu lon lañu farata lon ne lay joxe même bu ko joxee gu sax waaye tuddoon nañ ko tuddoon nañ ko ne nangam la war a joxe bu ñu xasee tudd rek ne nangam la war a joxe nee na loola na joxe genn wàll ga même bu sëy ba tasee na joxe genn wàll ga illa an yaafuun aw yaafu wallasi bi yadihi uqdatu nikah wala sax joxe woon na ko ba tey waaye bu boobaa nañ ko delloo genn wàll ga joxe woon na can gi nañ ko delloo genn wàll gi nee na nag lu dul mu baale bu fekkee joxe woon na ko ñu war koo delloo genn wàll gi moom ku góor gi mën na ne bàyyi na ko nañ na jël lépp rek walla joxeegul woon dara kilifay ndaw sa ne genn wàll gi mu war a joxe na ko far bàyyi rek gannaaw moom sëy bi tas na te jotuñu séq dara na ko far bàyyi il faut daal ka nga xam ne àq ja ci moom la féete mooy mooy baale illa an yaafoon aw yaafu la si bi yadihi nikah Kok mooy borom kër bi moom mooy bàyyi wala yaafoon a jële mooy bokki ndaw sa ñu bàyyi bu góor gi ne mayoon nañ ko suñ doom kat jotuñu seq dara te sëy bi tas na waaye nag lislaam lim tëral mooy na joxe genn wàllu can gi ndax can gi kendo nañ ko ba noppi bu jëkk bee moom kenn da ko tuddul dara foofu moom kenn du ko laaj dara lum joxe rek lam man bu dee fii nag liñ tuddoon day joxe genn wàll gi lu dul nag bokki ndaw si baal ko ne mu koy joxe wala mu joxe woon ba noppi dañ ko war a remboursé genn wàll gi lu dul moom ci boppam mu ne jërul ñu koy remboursé ne bàyyi mu ne wa an taafu aqrabul taqwa nee na nag bu ngeen balee nee na loolu moo gën ak ragal yàlla comme ci mën a doon daal boo bàyyee ji nga xam ne moo féete ci yow nee na moo gën a jege ak ragal yàlla bu dee góor gi daal joxe woon na ñu bëgg koo mu ne déedéet jaru ko bàyyee na ko moo gën bokki ndaw si itam waa ñu ne ko da ngay joxe genn wàll gi te moom sax amatu fa soxna loolu metti na may ku soxna mu tas ba noppi ñu ne da ngay joxe genn wàllu liñ la laajoon loolu itam nee bu ko bokki ndaw sa balee daal moo gën a jege ak ragal yàlla wa an taafu aqrabu lit taqwa wala tansawul fadla baynakum neena na bu ci kenn bëgg sonal moroom bu leen fàtte baax gi doxoon seen diggante ndax sëy buy tas ci nii muy wax nii day leg leg andi xawa ak bejo waye nak nee buñ fàtte ba jàmm am deggo di am kenn ku nek di defal sa morom njekk di defal sa morom teranga neena buñ koy wala tan sawul fadla bainakum ab sey bu leta sitam euh buñu ñu ba muy neex ba sey bay neex bokk yi ñëpp ànd ci ñëpp jubo ci buñ ko lola rek kon dañ ko mëna rafetal ci mujj inna allah bima taamaluuna basir suñu borom tabaraka kuatala taala mboolem li ngeen di jëf mom dara ump ko ci gis na lepp hafisu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi قانتين suñu borom ne yeen julit ñi na ngeen di sammu julli farata yi salawat ci diko joxe ci ay waxtom mu and ak sartam ak pankam ak ya ca war yépp te ngeen di sàmmonteeg julli guddig doomu gi kooku nag wute am na ci waaye li ci gën a not daal mooy julli takkusaan salatul asr ndax boo ko seetee ñaari julli féete nañ ko gannaaw muy julli suba ak julli tisbar yeneen ñaari julli toppaat na ca muy julli timis ak julli gee moom mu nekk ci diggante bi kon mo tax ñukoy tuddé salatul wusta julli gi ci digg bi tay day julli go xamné gu xawa jafé julli la ndax léeg-léeg day fekk nit ñi ci ay activité di leen di fekk ci ay yitté yo xamné la nga doon def dag ko pour nga julli ko ndax bu dee tisbaar am wacc nga te góntagoo bu dee timis la mën am wacc nga bu suba mën naa am go waye takusan nak day fekk na mom bo dé nga su fekkee da nga doon continuer sa liggéey itam ba tey yaa nga ci waxtu woo wax di dox ay yitte la moo tax na mat nay sàmmonteel bu baax a baax a baax julli moo tax ala salawaati wa salaati al wusta wa qumu lillahi qanitin te nag bu ngeen dee jaamu yàlla di julli na ànd ak toroxlu na ànd ak mokk bu jëkkoon buñ daan julli léeg-léeg ku bëgg wax da ngay wax ci biir julli gi boobu dañu taxaw rek waye ku bëgg wax wax waye bi suñu borom wacce li ne wa qoomoo lillahi qaanitiin ci la julli nak bo ci xasse dugg señeto dara lu moy lu aju ci julli gi rek ba ba julli gi jeex na ngeen taxaw ngir yalla ànd ak mok ànd ak toroxlu ànd ak yeg yalla wax na ci surat ci batay ci sar yu ne wa innaha lakabiratun illa alal xaashiin julli lu reey la ludul ci ñi nga xamne seen xol day tewlu julli gi قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ñi seenub julli jariñ mooy ñi nga xam ne julli gi xol beeg cër yeeg lépp ci la ànd mu ne fa in xiftum fa rijalan aw rukbanan fa ida amintum faskuru llaha kama allamakum ma lam takunu taalamun mu ne su fekkee da ngeen a ragal am noonu songu len maanaam ne ci xare loolu salatul khawf la maanaam buñu genné di xare ji wala ñuy dem japp ne non man nañu dajé ak mom buñ bari di julli man na leen faa bett ndax dañ dal pro bu pro profitoo ci nan bayyi leen leen bañ bar di julli rek su ko betlin. ñu bet leen mu ne su ngeen ragalé loolu nak farijalan man ngeen di julli di dox waaw julli di dox bu xare bi wax ragal gi taré man ngay dox di walé lele nga ruko doxat ab diir su jot di dem dal nga xamni julli gi dox bi dal ñoy and kon lim ne won bu ngeen de julli da lepp nek ci julli gi ci la genné wat li bu fekke na da ngeen nek ci ragal nak tiitaange xamna bu ngeen kabaré taxaw bëgg julli normal mën nañ leen fa fek kon man ngeen ba ja taxaw ben place man ngeen di déplacer wu mo xam da ngeen di dox ak seen tank wala sax da ngeen a war aw ruku baax mepp war gi tam waye yépp du tax na nga saña bayyi julli gi nañ bayyi ba ba feex wala ba talko dedet julli mom bu jotee mom situation bu mu la mën a fekk rek noonu nga koy julee mu ne mu ne fa isa amintum na su ngeen demee ba wóolu nag ba am jàmm nag amatu leen dara lu ngeen ragal nag faskurullaha kama allamakum na ngeen tudd seen borom mooy na ngeen ko jaamoo nim leen ko xamale woon ni nga xamee woon julli nag nañ ko doxale noona bu bu ci kenn dugalati di doxaka wëndeeloo ka war dara ak yooyu waaye bu fekkee cib xare nga nekk moom façon boo ko mën rek baax na jublu xiblaak yooyu kenn sartatu ko ci su ngeen demee ba am jàmm nag tal ko nag moom jullee leen normal ni ngeen ko xamee woon faskurullah kama allamakum ma lam takunu taalamun da ngeen tudd suñu borom tabaraka wa taala ni mu leen xamalee loo xam ne eh, xamu leen ko woon mooy na ngeen ko jaamoo noonee mu leen ko xamale woon والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج آية بي آية بي جيتو موكو موكو موكو سوبي أتم bi aay bi moom atteem doxatul bële la atteem di dox mooy bu tënji ñeenti weer ak fukki fan bii danoon wax ne bu fekkente ne am nañu faatu ci yéen bàyyi ay soxna nañu dénkaane mana ci seen alal parce que boobu ayatul miraas wàccagut nañ ci dénkaane loo xam ne seeni soxna dañ koy mën a dunde ba muy mat at diirum at moom ne kenn du leen génne na da ci kër boroom këram ñu jël ci alali boroom këram lu ko mën a dundal diirub at fa in xaraj na fala junaha aleykum fi ma faal na fi anfusihinna min maaruf nee na su fekkee nag at ma mat na ba mu génn nag kon boobu bu jëkkoon booba boobu at la woon gannaaw bi ne lañ ko def ñeenti weer ak fukki fan waaye bu jëkk at la doon doon la doon toog ñu koy dundal ci alal yi boroom kër bi nee na su xasee génn nag moom it aayul mu waajal ci boppam loo xam ne eh, mën na koo def ci boppam ngir keneen mën koo xemmem ba mën koo denc fala junaha aleykum fi ma faal na fi anfusihinna mim maaruf ci loo xam ne lu jekk lay doon eh, lu sare anangu lay doon waaye atte bi moom doxatul euh, bee mooy dox mooy ñeenti weer yi ak fukki fan yi te ñeenti weer ak fukki fan yooyu itam tenj bi ab dundam warul ci alali borom kër bi déedéet borom kër bi du moo du caagéen dañuy jël ci li borom kër bi bàyyi di ko dundale jigéen ñooñu toog ne dañuy tenj déedéet seenu dund warut bu amee ku mën a coobarewu di leen dundal moom baax na bu amul nañu miraas ñu jël seen wàll ca miraas ma di ko dundee waaye jël ci alal jël lu ñu leen dundale ndax borom kër bi yoretu leen ab dund ab sëye ko boolew nag ñoom ba mu faatoo moom sëy bi dagg na kon duñ jël ci alalam di leen ko di leen ko yore loolu itam bokk na ci erreur yi ñuy def léeg-léeg sax lu gën a garaaw loolu mooy la ñuy ab dëj sarax ñuy jël ci alal ki faatu di ko jëndee ay nag euh, di ko defe ab dëj loolu dagarut nit bu xasee faatu moom alalam buñ ci génnee yi aju ci moom muy lañ koy sànge ak lañuy fay ñakoy gasal ñu sul ko ak ñakoy sang loola la ca des bu fekkee am na lum dénkaane woon ñu génne ko ca la ca des nag yee ko war a doon waaye leneen luñ ca war a dépensé waat amut ab dëjëg yu yépp moom ku koy def yaa koy defal sa bopp ndax yoonam nekkul ci loolu moom waaw jigéen ñi kenn du jël ci aral ji loo xam ne moo leen di yor bu dee bu jëkk bii nag moom dañ leen ci daan jox lu leen yor waaye atte boobu doxut ndax boobu dañ daan toog mat at walil mutallaqaati mattaaun bil ma'ruf nee na jigéen ñi ñu fase nga xam ne moom dañ leen a fase rek cib sëy lañ nekkoon ca nag lépp amoon na ña nga doon sëy jigéen daal fu ko fasee rek war nañ koo waajal moo tax kon fase jigéen di nangu la nga ko joxoon loolu du melokaanu lislaam waaye da nga ko war a sax yóbbal waajal wutal ko dolle ko sax ab yóbbal mataaun bil ma'ruf haqqan alal muttaqin loolu àq ci ñi ragal yàlla ci ñi ragal yàlla fase jigéen euh, dang koy baye ak bagasam ba nopi sax soko ko wadjal waajal nak bagas yo bagage bagas ci ne kër ga la nag moom nga xam li ci kër gi dëkk mom yi jëfëti yo jëfëti borom kër gi da ko jënd ngir kër gi dënd ko won ngir ndaw si loola mom du ko yobbu waaye li nga xam mom moko mom ko mom nañ ko bayyi mu yobbu ko tay tam sax ñu wutal ko bu yóbbal wadjal ko ba mëna ñibbi ñibbi yoon bu rafet mëna loolu àq ci ñi nga dañu ragal yalla kazalika yubayyinu llahu lakum ayatihi nee na nag suñu boroom mi ngi leen di leeralal aayaam yi laallakum taaqiluun ndax ngeen xellu jëfandikoo seen xel ba mën a topp ndigali suñu boroom tabaraka wa taala mun nañu